Euh, salaamaaleykum suñu mbokk internet Equivox TV ah, tey ñu ngi ñëw fii ci backstage bi fii ci esplanade Grand Théâtre ku gis sama ginnaaw ne xam ne ñu ngi biir esplanade Wally Seck préparation bi tey incha allah lépp lu ci préparation lépp luy dugg si Wally Seck lépp luy dernier réglage incha allah dinañ leen indil lépp kon ñu dugg ñu xool gars yi xool nan lañ koy préparé. loo leen waajee bis bi. comme nañ ko doon waajee rek na xam nga ca dëgg-dëgg. bu ñu ne Waly Ballago Seck xel yëpp dem ci baayam coon xel yëpp dem ci baayam Mor Dior xel yëpp dem ci baayam Ousmane Waly Ballago Seck nag ni ma koy waajee noonu rek la ko doon waajee moo woo ay xaritam woo ay soppeem woo képp ki nga xam ni faramaareen nga ak ku du sax faramaareen ci bësam bu màgg bi mais lan lañ mën a xaar. ndax xam nga Faramareen bi kenn dootu ko présenté national international. dootuñu ko présenté Cheikh Seck kay maamam moo jur baayam ndey wuri ba mooy maamam moo jur ndeyam waaye daal lépp lu fi xew la 27 surprise rek la ñuy indi incha allah. ñaa bis bi noo koy waajee. bis bi comme ni ñu ko doon waajalee rek xam nga le 27 moom duy caaxaan daal kooku anniversaire sunu xarit la ñu naan ko Marie Yacine Messe bii la golden boy de la musique sénégalaise. Euh, ñaa samedi grand combat la de. waaw samedi grand combat xam nañu euh, petit stade bi nar naa fees de. esplanade bi waaw dina fees. non stade bi stade bi laa ko tuddee esplanade loolu def na ko ci poche am kenn loolu ko. non mais stade bi cumbukaay nan lay ñëwee. Ah, waaw li xam moom miin na fii fii moom bërëbam la miin na ko fii moom bërëbam la daal miin na ko trop macha allah di ko ñaanal rek yàlla defal ko jàmm ñu commencé ko ci jàmm jeex ci jàmm incha allah rabbi ci kàttanu suñu borom. fan si lan moo leen di xaar waaw fan si ndax ma Wally moom moom boo nee Wally rek ne nitu surprise moom mooy loolu daal surprise moom mënta ñàkk ci bés bi daal. la. mais ñaa indi yow. man la ma doon ay from Framaren musique bi rek. ñaata sinap. ñaata iPhone. non ñetti iPhone laay indi <laughs> ñetti X Max laay indi rek. ñetti ñaa waxoo woon loolu de. ñetti hmm. da nga ko wàññi daa mel. ëpp na loolu de. non ñett la ñetti X Max la. waaw ah, ñetti X Max. yee ñu dañaa preuve lépp fa lay xewee incha allah. waaw kon rafet na jërëjëf ñaa ok. waa nee naa leen ba tey ah, maa ngi yéen xeex bu dul jeex la léegi dañuy dem xool gars yi ndax euh, cumbukaay il faut ñu ñëw te ñuy ñëw ko yor salaamaaleykum na ngeen def ay eh, tuw ñëwal. waa kii tumaani la. tuw nam nañ la. maa ngi bi noo leen koy waajalee lan ngeen di indi. lan lañ indi daan ñibbi. nam nañ la. mais maa leen raw. fu liggéey bi toll xam naa pare na sax mais looy waaj. Euh, euh, comme d'habitude rek ay surprise surprise surprise parce que mënoo di fêter sa anniversaire chaque fois ngay def la même chose donc anniversaire bi saa yu jub rek beneen chantier la bu teguwaat boo xoolee installation yi di nga war a deviner wala nga filmer ko won ko ñi ñi ñuy suivre ñëpp ñu xam ne euh, y a d'autres surprises en prélude mais tey dañoo gis lu bees ñu gis entertainment ñu gis Faramareen bi nduróole jëlama gaay nduróole bi verre bi innovation bi lan la. nduróole bi lan la. Euh, famille daf koy niru. boo leen bokkee benn direction. boo leen bokkee benn objectif. boo leen bokkee benn ensemble bokk benn même euh, euh, destination. war ngeen mën a niroole discipline la. ak ça force le respect aussi entre nous. donc loolu la amul grade. ñëpp ñëpp yem. ñëpp yem donc c'est une famille. voilà mais nduróole bi staff bi la wala musiciens yi la wala lan la. Ah, musicien yi la. ah musicien yi la waaw waaw ma jox la code boobu. xam nga ni duma commencé ba yeggale te yenn yu ñuy yëngal di yëngal suñuy yaram xamuñu kan la sama papa ji la. papa papa papa waaw wuy ma d'accord naa xaw ma si dara. <laughs> waaw papa présentel Sénégal lan nga lan ngay lan ngay dugal ci xol yi te xamuñu la. ok maa ngi wax d'abord bisimilah rahmaani rahim yàlla ñëpp am jàmm ba. ba li ñu fi indi tey ñu yàlla boole ñu ko ñun ñëpp ñu bégge ko ñaanaat yàlla fekkewaat anniversaire Wally Seck man nag papaam laa waaye xam naa yaa ma xamaloon man 44 44 Youssou Ndour sax di nga ma ci gis daa gis nga ma ca baaba ma ñii gis nañ ma ca Thione Seck ñii gis nañ ma feneen li ma dese woon nag booy beek moom ah booy bi rek ko moom. mais lan ngay indil booy bi samedi. bu ma ko waxee du neex. bu kenn ah, ci mosal tuuti. bu kenn tardé rek. sa bu kenn tardé bu kenn tardé. Mm. incha allah yàlla na ñëpp am jàmb ba ñëw. ñi amul billet sax ñu teel leen dimbal si billet ñu am. kon tee fee far fanaan. non yow yow yow dafa loola neex. Ah. mais yéen nag yéen nag yéen tamit yàlla na yàlla jàppale ah. kii Vox TV gii ne yàlla na leen yàlla jàppale. amiin ca borom ba ci yow mi ak ña gën a ndaw. chauffeur yaak ñëpp ci lañ bokk na ñëpp am jàmm. incha allah papa ñu ngi lay remercier. mbër la boo xam ne ñeme na am na fit ragal na fi mu jëm. gisoo lim xàll nii xanaa ni ko xàll doo ragal yi man fay-fay gi la te da koy duy de incha rabbi day fees daal teel ku yéex 23 heures ku mu fi fekkul boo deful naa ko doo am foo toog leer la waa gars yi dégg lu dell wax de nee na 23 heures ku la fi fekkul doo toog kon man 18 heures dina ma fi fekk.